di leen ndokkeel ci mujjug weer wu tedd yu ñu nekk di ñaan sunu boroom tabaraka wa taala mu nangu suñu jaamu yàlla yépp te fulal ñu yool bi te jegal ñu sunuy rëcci rëcci ak sunuy njuumte te baaxe ñu ci kàttanam ak man-manam may ñu fekk ko ay yoon yu bari yoo xam ne day ànd ak jàmm xéewal ak jaamu yàlla gu ñu nangu tey jii nag daaira muqaddamatul xidma ñëwaat ci jataay yi nga xam ne da ko jagleel ay ubbee tey nag mooy ñeenteelu jataay bi nga xam ne mooy mujj ci kooru ren gi ci atum 2024 1445 ci gàddaay gi ñu fas yéene ci ànd ak sëriñ Cheikhuna Mbacké Abdul Wadud ngir mu indi ay leeral ci laaj yi nga xam ne mu ngi ñëw bàyyi ko ci mbokk yi kon dañ koy bàyyi mu nuyoo su nuyoo ba noppi nag ñu tàmbali dugg ci laaj bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina astafa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di leen siyaare di nuyu di siyaare itam képp ku sunu àgg sunu kàddu àgg ci moom ak fu mën di nekk tey ñaanal ñëpp jàmm di ndokkeel ñëpp ci mujj koor gi di ñaan yàlla nagul na ko te delloosi ko ay yoon yoon yoon yu ñuy fekk ci ak wér ak uk tal di ko ñaanit mu defal nu ak jàpp ndal ba li ñuy wax ci jotaay bi doon lu jub lu am njariñ defal nu jàpp ndalit ba lu ci am njariñ nu jariñoo ko sëñ Cheikh jërëjëf sëriñ naa ci nuyoo bi laaj bi ñuy tàmbalee day laaj na lan ngay laa biire jigéen ji nga xam ne day dund ci bitim réew ak boroom këram moom jigéen ji nag bëgg nañu fase ko waaye boroom kër gi nanguwut dem na sax ba ne ko ma laa jox ab lim ci alal te nga bàyyi ma mu ne waaye taxul boroom kër gi nangu mu ne kon kooku lu ñu koy laabire waaw loolu day ab sëy moom góor gi mooy mën a maye baat walla yoon di di dindi ko ñaar yooyu rekk ci lay mën a dañ ginnaaw ñaan na baat góor gi nangu koo may yoon rekk a fi sës dem ci yoon rekk yoon wa fa nekk rek nag yoon bu ñu waxee yoon yoon wa fa nekk rek la fu mën di nekk ci àddina si la fay yoon rek foofa lay dem bu fa demee ñoom bu ñu seetee gis ne li muy wax lu jaadu la danañ dindi sëy ba te mën naa am sax duñ duñ du ca duñ ko ca laaj dara duñ ko ca laaj dara eh, kon ginnaaw nagu ko may baatam te moom munta demati kon yoon rek moo fa sës day dem ca yoon rek yoon moom dindi sëy ba te lu ci ëpp sax moom duñ ko laaj dara buñ dee laaj góor ga dañuy laaj suñ cheikh kii mu ne ndax dagal na ci góor mu denc doomi jiit lay magam bu góor bu mbokkal ndey ak baay wala rakkam ju góor ñu mbokkal ndey ak baay waaw lu ma waroon mottali ci laaj bu njëkk bi rek mooy balaa dem ci yoon it bu ko ñaanee nanguwut na seet ñeneen ñum jaar na jéem a jaar ci ñoo xam ne danañ mën a wax ak moom ba mu nangu loolu rek laa ci laa naroon fàtte ndax léeg-léeg it nit ñi dañuy gaaw waxtaan ñoom ñaar jubóowuñu rek ñu daal di def la ñuy def te buñ ci dugaloon ñeneen xëy na danañ leen mën a jubale kon na ci dugal ñoo xam ne xëy na danañ mën a waxtaan ak moom ba may ko baat ci njekk bu loolu mënta nekk nag mu door dem ci yoon bu dee nag ku am kum bokkal ndey ak baay kooka am doomi njiit le ndax moom dana mën a takk doomi njiit le yi ki mbokkal ndey ak baay dana ko man kay nit ki doomi njiit le boppam la munta takk moom ci boppam doomi njiit leem la munta takk bu fekkee jote nag seq nag yaayam ba noppi bu xasee seq ak euh, soxna doomam ja nga xam ne doomi njiitam la moom du ko mën a takkati waaye doomi njiit lay keneen moom dara du ko tere mu takk ko doomi njiit lay baayam sax mën na ko takk sàkkatuma doomi njiit lay mag walla rek kon loolu dara nekku ci mm-hmm. euh, kii mu ne ndax dagan nañu féeteerlu ci kaw njiit li maanaam bañ a topp ay ndigalam ak ndax président yi nga xam ne dañu leen a tànn ci ay élection ak yu demee ndax am nañu sañ-sañu jekki-jekki rek fépp fetteerlu seen kaw. Hmm, fetteerlu mooy mooy të të leen daal te bañ a jaar ci euh, liñ tëral bañ a tënku ci seeni ndigal loolu jaaduwut képp kuy kilifa rek. kenn waruta xëtt ndigalam bu dee ndigal lu jaatu ndigal lu jaatu nag mooy ndigal loo xam ne dëppoo naa ak lu neex yàlla mooy lañ digle doonut ak mooy yàlla kon bu fekkee diglewuñu ak mooy yàlla wala ñu tere lu yàlla digle dañ leen a war a topp képp kuy njiit nag képp kuy njiit loolu dañ ko ko ameel ñàkk ko topp kon xëtt ndigal la euh, yàlla moo wax ci alquran ne nañuy topp moonu digal nu topp yàlla topp yonent bi topp sunuy kilifa muy ulul amr yaa ayuha alladina amanu atiu wa atiu rasula minkum loolu kon yàllaa ko digle képp kuy kilifa rek dañ ko war a topp ci lu jaadu ci lu jaadu bu diglee lu jaaduwut nag kenn du ko ci topp te lu jaaduwut mooy rekk lu wuuteeg la yàlla bëgg sëñ Cheikh. kii mu ne lan mooy atam natt yi nga xam ne dañuy dajale alal ji ci benn diir jox ko kenn beneen yoon ñu dajalewaat jox keneen ba keroog muy jeexe ak ki nga xam ne mooy dajale natt yooyu ndax mën na cee am ab lim sàngam ñu ne ku teggi da koy jox nàngam waaw bu dee luñ dëppoo la de bu dee jëmmi natt moom xeetu dimbalante rek la xeetu dimbalante la mooy nit danay am yitte yoo xam ne munta amandoo lum ko faje waaye nag bu ñu bari dajaloo kenn ku ne di joxe dara ñu dajale ko jox kenn mu faj ci yitteem bu beneen ñu dajale jox keneen mu faj ci yitteem di ko def noonu ba mbam mat loolu xeetu dimbalente la ndax kenn ku ne ñu dajale jox ko moo tax mu mën a faj itam joojee ci benn yoon rek kon dimbalante la ki nga xam ne nag moo koy toppatoo di laaj di dajale di jox ki ñu war a jox kooka moom itam buñ dëppoo ci di ko jox dara itam sañ nañ ko buñ dëppoo ci ne saabu saabu it bu kenn di teggi danañ ko jox dara moom nangam mu doon luñ xam nag mu doon lu ñu xam danañ ko jox nangam saabu di teggi danañ ko jox moom mi ko yoree danañ ko jox nangam boobaa dara nekku ci ndax day mel ne ak pay la rek da leen di liggéeyal ñu di ko fay wala bu leen neexee ñu jàppe ko ab neexal waaw ci mën di doon sañ nañ ko bu fekkee juboo nañ ci ñoom ñu ko seq ñëpp sëñ Cheikh. kii mu ne ndax dagan na ci maamum yi ñuy wax balaa lu mel ni su imaam bi dee jàng ne alaysa allahu bi ahkamil xaakimin maamum bi ci ginnaaw ni balaa waaw loolu kay lu yemut ci daggan waaye lu ñu bëgg la alquran ku koy jàng mbaa mu koy déglu dana am béréb yooyu day mel na yàlla day wax ak moom dañuy bëgg muy tontu moom itam mu mel ne kuy kuy wax ak yàlla ci li muy ci li muy waxee moom mu ko cee tontu. am na béréb yu bari ci alxuraan yoo xam ne noonu la wax ja di dikkee dañuy bëgg ki jàng alxuraan mbaa mu koy déglu di tontu lu mel ne fii fi yàlla daa mel ne koy laaj xanaa du xanaa du yàlla dàq àtte àttekat yi ndax mel ne koo laaj kon moom dana axakay axakay dañuy bëgg mu wax loolu balaa wa ana ala dalika min ash ci misaal bari na ci alxuraan yu mel noonu yoo xam ne yëpp dañuy bëgg ci jàng di di tontu di tontu bu fa lu ci bari ay laaj lay doon fa bi ay ala i rabbikuma tukazibaan ab laaj la yàlla day laaj nit ak ginne xéewal seen borom jan ngeen ci gan ngeen ci wedd yow mi jàng alxuraan maa ngi koy déglu da ngay tontu ndax yàlla da laaj danga naan ko wedduwuma ci lenn wedduwuma ci lenn weddu yow kay dañ lay sant yow kay day lañ sant laa lu mel ne nga ne laa bi ay yin min alaayika rabbana nukazib falakal hamd ay misaal la rek waaye bari na ci alquran kon mooy yemul rek ci ne sañ na ko waaye sax daf day day luñ bëgg day luñ bëgg sëñ Cheikh lan mooy àttab koo xam ne dafa njaaloo ak jigéen ba noppi wëlbatiku takk ko te jotu koo laablu waaw lim ne takk ko de takk ga moom wérut wérut mooy jigéen bu séqee ku mërta séqal dafa war a laablu bu laabluwut fii ak muy laablu mëneesu koo may keneen yeeg laab luut mënees su ko may keneen mënees su ko may kenn kenn rek laa wax keneen waaye kenn kenn moo xam ki mu seqaloon la moo xam keneen la kon jigéen bu seqee ko mu wërta seqal ak lu man di tax nag moo xam njuumte la moo xam moo ko tey moo xam dañ ko caa forcé moo xam lu mën di doon ginnaaw seq naa ku mu wërta seqal daal day laablu ba dañ koo mën a may ba dañ koo mën a may ku man di doon kon buñ ne mayee nañ ko may ga wérut loolu moo jiitu mooy kon loolu ñu naan da koo takk takk ga wérut la ca toppaat nag mooy koo xam ne daa war a laablu te laabluwut ñu ne may nañ ko nit ba nit ko séq ak moom bu dee ci ngër ñi dañ naan benn moom may ga wérut waaye ñaareel ba mooy duñ mën a séyati mukk ginnaaw séq na ak moom ginnaaw ñu nee may nañ ko ko ci ginnaaw bi seq na feek moom da fekk mu waroon a laablu te laabluwut bu dee ci ngir mi dañ naan duñ ma may gi moom wérut waaye duñ leen may mën a mayeeti benn yoon bu fekkee jotuñu seqaat dara ci diggante bi nag dañ leen di tàqale mu laablu bu laabloo ba mu jeex nag dalañ ko ko mën a may hmm. sëñ Cheikh kii mu ne léeg-léeg bu nit faatoo buñ koy tàggee dañ naan qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu ne ndax baatu qaalu bi da cee mënta ñàkk wala déet waaw waru cee am sax kay waaye xam naa benn ku xamut wala ku ku seetluwul rek moo koy def ndax foofu yàlla dafay nettali yàlla danaan ñi nga xam ne ñi nga xam ne bu leen ab nattu dalee dañ naan dañ naan dañ naan mooy xaaloo waaye la ñuy wax mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon ku bëgg a wax loolu lay wax bu ko nattu dalee danaan kon inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye du ne xaalu xaalu ji yàlla mi nettali moo ko wax ne dañ naan yow moom yaway wax kon da wax rek li ngay wax loolu xëy na ku xamut mën na koo wax boole ko ci walla ku ci bàyyiwut xel waaye dëgg-dëgg waru ci du ci bokk du ci bokk inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek la ñuy wax suñ Cheikh. kii mu ne imaam bi ñaata sëlmal lay sëlmal laata ma moom it di sëlmal. Euh, genn sëlmal rek ndax sëlmal mooy li koy génne ci julli gi benn sëlmal moo koy génne ci julli gi asalaamu aleykum ji muy wax rek moo koy génne ci julli gi bu xasee génne ci julli gi rek ci topp ci ginnaaw mi tam mën naa génn ci julli gi kon bu xasee wax asalaamualeykum rek ki topp ci ginnaawam itam mën naa daal di ne asalaamualeykum moom it génn ci julli gi waaye bu dee ku koy wax ñaari yoon bu ko négee mu wax ko ñaari yoon mu door koo wax moom it dara nekku ci asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah ki ci ginnaaw door koo door a door a sëlmal dara nekku ci waaye benn bi rek moo koy génne ci julli gi bu ko defee ki topp ci day mën a génn ci julli gi fi mu ne ndax dagal na ci jullit yu jigéen yi nga xam ne dañoo nekk ci Europe ci misaal ñuy jël ndimbal yi nga xam ne gouvernement bi moo koy joxe wala yenn ONG waaw jigéen ñi jullit ju nekk Europe wala mu nekk feneen fu mën di nekk ak góor ak ñépp ci yam mooy ndimbal moom bu ko ab gouvernement di joxe. wala ak mbootaay ak kuréel di ko joxe ñoom dañoo teg ay nattuwaay yoo xam ne kuñ daje ci moom moom lañ koy jox kon bu dajee ci kum daje ci ñoom bu la ko joxee sañ nga koo jël dara nekku ci ndax ak jàppale lay doon euh, ak ndimbal loo xam ne ñoom ña koy joxe am na nattuwaay yu teg am na ñi ñu ko jubloo jox am nattuwaay yu ñu teg ku nattuwaay daje ci moom ñu jox ko ko kon kuñ ko jox dara nekku ci sañ na ko jëfandikoo moo xam jigéen ju nekk Europe la moo xam góor gu nekk Europe moo xam jigéen ju nekk senegal moo xam góor gu nekk senegal moo xam fu mën di nekk ci àddina sëñ Cheikh kii mu ne koo xam ne ab jàngalekat la bu dee jàngale ba ci biir dégg ñuy noddu ndax day taxawal njàng mi wala mën naa continuer di jàngale mu taxaw de moo gën mu taxaw def liñ ko dig liñ ko digal ci waxtu woowu ndax waxtu wu ne def ca lañ ca digle moo gën def ca leneen te liñ digal kuy dégg nodd mooy mu di ko awu muy awu kiy nodd mu ànd ak moom bu ànd ak moom ba mu daaneel nag mu àggale lam nekkoon mu wéy ca lam nekkoon loolu mooy di gën bu ko deful nag lu tax ñu ne dafa def bàkkaar moo xam jàngale lay def moo xam leneen moo xam kuy jàngale la moo xam kuy waxtaan la rek la gën lañ ko di lañ ko diggal mooy bu nodd gi tàmbulee muy ànd ak ci nodd bàyyi lam nekkoon ba nodd gi jeex mu door a nekk woyaat ca lam nekkoon bu dee ko jàng alxuraan sax loolu lañ ko diggal sàkkantuma nag kuy def leneen sëñ Cheikh mm-hmm. mu ne ndax dagan na ci ab jullit muy liggéey ci isin boo xam ne dafay jëfandikoo yenn appareil numérique wala lenn robo yi nga xam dañuy def li nit di war a def waaw da dara newu ci jëmmi liggéey ba la lay xool rek liggéey ba muy def moom rek lay xool liggéey ba muy def bu dee liggéey bu dagan rek mu nekkandoo ak yu robot yi liggéey dara newu ci mel ne mu nekkoon rek nit yi liggéey rek ay ay ay ay moroomam lañ rek moom day nit ñoom du ñu ay nit rek waaye dara nekku ci li am solo mooy liggéey bi ñuy def moom ndax dagan na lañ koy def loo ndax dagan na bu daganee rek àndandoo ak di ko def loolu dara nekku ci bu dee loolu la jublu lool dara nekku ci seen cheikh euh, kii nee na moom dafa bëgg ñu firil ko laaya ji suñu borom di wax ne yaa ayuha alladina aamanu ida jaaka almuminaatu yubaayinaka ala an laa yushrikna billahi shay'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن في ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك بمك mooy fukkeelu laaya ak ñaar ci saaru al mumtaxana daa nañ ko wax imtixaan suratul imtixaan jenn laaya rek moo ci topp saar yu jeex kon mooy laaya ji jiitu ji mujj ginnaaw sulxul xudaybiya ci la wàcc waaye laaya ji li ci nekk mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan jaayante ak jigéen ñiy dugg ci lislaam jigéen ñi dugg ci lislaam tomb yi ci nekk la yonent bi daan jaayante ak ñoom danaan leen na jaayante ak man ci yii yii yépp lu ñuy bàyyi la ci bu leen def nàngam bu leen def nàngam bu leen def nàngam bu leen def nàngam muy yàlla dana ko yow yonente bi bu ay nit ñëwee bëgg tuub ay jigéen bu ñëwee bëgg a tuub di jaayanteeg yow jaayanteeg yow ci ne duñ bokkaaleeg yàlla lenn duñu sàcc duñu njaaloo duñu dugal ci seen askanu borom kër ku ca bokkut duñu la mooy ci lenn itam buñ jaayanteeg ñëw ci yooyu nanga nangu seenu jaayante moo tax yonente bi buñ ma bu jigéen ñi ma saana tuub ci yii lay jaayanteek ñoom soxna Aysa loolu la nettali dafa wax ne ku masaa jigéen ju masaana tuub ñëw fekk si ko Madina day jaayanteeg moom ci yii bu ko defee buñ nangoo yonente bi nangu seenu jaayante ne ne leen kon jaayante na ak yéen kon loolu la mooy euh, yi nga xam ne ci la yonente bi daan jaayanteeg jigéen ñi dugg ci lislaam te yàlla moo ko digal bi laay ji wàccee nag yonente bi ku masaan dugg ci lislaam yooyu la lay jàngal boo ko defee boo ne ànd naa ci mu ne la kon jaayante nan kon bokk nga ci jullit ñi euh, bokk nga ci diine ji sëriñ Cheikh mm-hmm. jërëjëf sëriñ Cheikhuna kon laay bi dañ see juumoon yaa ayyuhan nabiyyu idaa jaa'aka al mu'minaat kii day laaj mu ne ndax maamuum mën naa sujjóot sujjóotub juum ginnaaw bu imaam bi noppee ak ndax su fekkoon ne maamuum bi da doon jàng taaya ji laata muy àggal imaam bi sëlmal moom day àggale taaya ji wala day daal di sëlmal rek ànd ak ilmaan ji bu fekkee ndax sujjóot sujjóot sujjóot bi ñuy sujjóot ngir defar defar ak julli ndax sujjóot boobu maamum mën na ko sujjóot ginnaaw ilimaan bu dee ginnaaw daa jublu ci ginnaaw mooy bàyyi ba ilimaan def ko ba noppi mu door koo def bu jubloo loolu loolu moom du ko def du du bàyyi ba ilimaan def ko ba noppi mu door koo def moom bu jubloo ci ginnaaw nag mooy topp ci moom ilimaan di ko def mu di ko def ànd ak moom loolu noonu la war a def noonu la war a def ni muy ànd ak ilimaan ci julli gi rek lu ilimaan def mu def ko bu demee ba sujjóot yooyu sës fii itam day topp ci ginnaaw ilimaan bu sujjóotee mu sujjóot bu siggee mu siggi mu sujjóotaat mu sujjóotaat mu siggi mu siggi bu dee loolu jubloom noonu la war a def waaye warut a bàyyi nag ilimaan sujjóotal boppam ñaari sujjóotam yëpp ba noppi moom mu door a sujjóotal boppam ñaari sujjóotam moo xam sujjóot yu ñuy def lu jiitu sëlmal la moo xam sujjóot yu ñuy def ginnaaw bu ñu sëlmalee la ilimaan tam ki topp ci ginnaawam warut di àggaleel boppam lenn lu mu tàmbuli ilimaan noppi ca ba dem ci leneen daawar dem rek fekk ilimaan ca loola waaye warut àggaleel boppam ndax boobaa kon toppatul ci moom day mel ne daa de dend ak moom rek daanaka bu fekkee ilimaan dana sujjóot wax li muy wax moom bi muy laata wax li mu bëgg a wax ilimaan siggi moom mu toog fa di àggale kon day mel ne ànd ak ilimaan te ilimaan dañoo war ak moom boo xasee tàmbul dara ilimaan bu noppee moom ba dem ci leneen rek da ngay dem fekki ko yam fa nga tolloon doo ko àggale ci topp ci ginnaaw ilimaan amut lu muy àggale ilimaan rek lay topp saabu bu ilimaan demee ci leneen rek day jóg fekki ko ca loola sëñ Cheikh kii mu ne ndax dagan na ci nit mu jël azaka jox ko ay goroom walla ay nijaayam moom it yëmut ci dagan rek waaye dafa gën buñ ko yeyoo buñ ko yeyoo mooy ku yeyoo asaka tey mbokk tey mbokk tey it yeyoo na ko yeyoo gi mooy ku sañ a jël asaka la te nekk na ci béréb boo ko ko sañ a joxe nekk na ci bërëb boo ko ko sañ a joxe kooka bu dee mbokk dañoo taamu nga jox ko nga jox ko moo gën nga bañ koo jox jox jox ab jàmbur kon nijaay ak euh, goroog mag ak rakk ak yooyu yëpp jarbaat bàjjan yompaañ yooyu ñoo ñëpp ku ci yayoo asaka jox ko ko du rekk lu dagan waaye lu baax la lu gën la ndax yonent bi daa waxoon ne ku jox ab sarax mbokkam day am ñaari yool yoolub sarxe bi ak yoolub jokkuk mbokk moo tax ñuy taamu ku kuy sarxe mbaa muy dimbalee mbaa muy joxe asaka te mbokkam yayoo ko mbokkam moo xam ne dundal ko waru ko te ñi ñu tudd dundal leen waru leen kon mbokk yi nga xam ne dundal leen warut nit ki mbokk yooyu dañuy taamu buy joxe yu mel noonu te ñeyoo ko mu jox leen ko tam sañ leen koo jox mu jox leen ko dañ koy taamu door a jox ñeneen ñoo xam ne yeyoo nañ ko waaye ay jàmbur lañ sëñ Cheikh. kii nee na moom dafa yore ñaari million yor na ko daal lu toll ci ay weer nee na ñu dem ba at mi des tuuti rek yàlla dogal mu am beneen million mu ne am na ñett million léegi ndax da koy jàppe rek jenn alal ju muy génn asaka wala lu mujj la da koy ber. waaw bu dee ku ab ñaari alal te ju mujj ji juddoowul ci ju njëkk ji juddoowu ca ni mu waxee ni day mën na juddoowu ci dafa amoon xaalis ba jëmmi jamono mu am beneen xaalis boo xam ne juddoowul ci xaalis bi boobaa xaalis bu ci nekk àtte boppam lay yor bu ko soobee mooy bu ko soobee bu nekk da koy beral atum boppam beral ko nisaabam day xool lim njëkkoon a am ndax mat na nisaab bu koy xool du ci boole lii mu mujj am bu matee nisaab ba mat at mu génn ca léegi tam mu ber ko di ko xool moom it loolu mu xaw a jafe nag mooy di ber beraan yooyu moo tax li gën a noppal nit ki rek mooy lu mu am rek mu boole lépp sañ na ko sañ na ko lu mu am rek mu boole lépp sañ na ko moo ko gën a noppal moo gën a simple waaye sañ na itam nag di ko ber bu fekkee man na ko bu fekkee mën na lu ne mu koy saytu 2 millions yi mu amoon jamono sàngam mu di ko saytu 1 million yi mu am ginnaaw bi mu di ko saytu lu ci ne bu demee ba mat at mu door koo génneel bu ko manee mën na koo def waaye li gën a simple ci moom mooy mu boole lépp rek li mu am lépp mu boole ko. saa bu ni nisaab rek mu jàpp ko bu matee at mu génneel ko asaka sëñ Cheikh loolu sañ na ko te moo gën a simple waaye bu bëggoon a ber leen lu nekk itam nag dana ko mën a ber di ko génneel asakay boppam sëñ Cheikh. jërëjëf sëriñ Cheikhouna kii mu ne ndax dagan na ci góor mu denc soxna soo xam ne rakkam a ko yoroon yàlla dogal rakk ji faatu. waaw waaw dagan na kay euh, nit. ku rakkam yoroon rakk ji jóge fi moom mu yor ko dagan na ci diine ci diine aada nag xëy na duñ ko def ci aada waaye diine moom terewu ko kii euh, mag yi nit yoroon nag ki rakkam yoroon ñooyam ci diine ku ci ne la nit ki sañe jël bu fi rakkam jooja jógee wala magam ju jóge fi bu dee ci aada nag nit ñuy faral di def moom mooy bu dee ku magam yoroon moom mën na koo yor waaye bu dee ku rakkam yoroon ci aada moom dafa mel ne duñ ko faral di def suñ seex hmm. kii mu ne ndax koo xam ne bu dee julli julli gi lépp daanaka lim ciy teewlu lu tuuti lay doon mu ne ndax kooku ak jullam dana wér waaw dana wér de ndax wér ki julleem wér mooy koo xam ne kenn du ne ko julliwaatal kenn du ne ko julliwaatal kon julleem wér na mooy julli na waaye nag bu fekkee teewluwu teewluwu ci kem kem lam ca ñàkk a teewlu rek tuyaaba mën na ko wàññi kon ki ci teewlu li ëpp waaye am ca lum teewluwut lam ca teewluwut dana ko ñàkk ku dem ba lam ca teewluwut moo ëpp kon lam ca ñàkk mooy ëpp ku dem ba daanaka teewluwu ci kon daanaka du ca am dara yonente bi noonu la ko waxe day nit dana julli am ca lu tollook nangam nit julli am ca lu tolloog nangam di ko wàññi di ko wàññi ba ne nit dana julli du ca am dara waaye nag julli na julli na xëy julli gi nag amalu ko njariñ liñ ci bëggoon muy tuyaaba ji amu ko ndax ñàkk a teewlu wala wàññiku na ngir ñàkk a bi waaye nag wér na wér moom mooy kenn du ne ko dangay ngay julliwaat waaye nag lañ cee séentu loola moom ñàkk a gi tax na mu wàññiku mën naa mu wàññiku lool lool lool mën naa am sax mu jeex sëñ Cheikh. kii nee naa koo xam ni moom dafa génne wutoon muurum koor daaw ba ren mu ne kon luy atteem. waaw moom bor la ci moom rek bor la rek bor la. muurum koor ku mu war te génnewu ko ci waxtu wi mu ko war a génnee bor la bor nag lu mu yàgg-yàgg bor la bu bàyyee ba ñaari fan door koo génne fay na bor bi ginnaaw ñaari fan bu bàyyee ba koor gi dellusiwaat tam ba tey bor baa ngi ci kawam lu mu yàgg-yàgg bor la boo xam ne rek da koy fay sëñ Cheikh hmm. da koy fay te jéggulu tuub tuub tuub laay wax da da day tuub ndax dafa dafa def lu ko tere dafa mooy yàlla yàlla daa digle waxtu wuñ ko war a génne mu bañ ko caa génne te ngànt waralu ko kon mooy na yàlla dana tuub dana fay bor ba itam lu mu yàgg-yàgg suñ cheikh hmm. kii mu ne laay ji daal la bëgg ñu firil ko ko li sunu borom wax ne wa ida jaahum amrun min al amni aw al xawfi adaau bi ba laay ji jeex ne na laay ji la bëgg ñu tekkil ko ko laay jooju mooy juróom-ñetteel juróom-ñett ñetti fukkeelu laaya ak ñett ci saaru annisaa dafa dugg ci laaya yu ko jiitu lu tàmbalee ci juróom-ñaar fukkeel ak juróom-ñaar ba ci juróom-ñett fukkeel ak ñett yàlla da ciy wax mbir yi ñi nga xam ne bu bu xeex masaana am bu xare masaana am dañuy wuti lay dañuy wut ay lay mooy daawuñ sawar ñooñu lay wax ne la dem ba àgg ci wax lii ne danañ koy def mooy buñ déggee dara loo xam ne luy dalal xelu jullit ñi la wala mu doon lu mën a ragalloo jullit ñi lu mu ci man di doon ñu dégg ko rek dañ koy daldi tasaare te duñ ko delloo ci seeni kilifa ci seeni njiit te mu ne buñ ko delloo woon ca njiit ya nag njiite ñoom danañ xam nu ñuy jëflante xibaar boobu ndax xibaar mën naa man naa mën naa mën naa néewal doole ñuy xeex xibaar bu wérut boo xam ne gëstuwuñ ko ba xam ne demee dëgg-dëgg mën naa néewal doole ñuy xeex mën naa tax noon ya itam jot ca bu fekkee luy dalal xelu jullit ñi la noonu ya mën nañ caa jot euh, soppi seen taxawaay bu dee li tax jullit ñi ragal la ragal googu bu duggee ci ñoom mën na leen néewal doole moo tax njaboot gi luñ mën di dégg itam waruñ koo tasaareel seen bopp ñoom dañu déglu ba kilifa yi seeni kilifa def la ñuy def seeni kilifa bu dee lu wér la te war a tasaaroo danañ ko tasaare dañ ko war a tasaare bu fekkee lu wérut la danañ xam ne wérut waaye njaboot gi nag warut di gaawantu moom lu mu dégg rek tasaare ko loolu la yàlla di wax fii wax ne ñooñu da danañ def loolu ida jaahum amrum min al amni aw al xawfi adaau bi walaw radduuhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladina yastanbituunahu minhum bu fekkoon delloo nañ ko ci seeni kilifa nag déglu leen ñoom danañ xam taxawaay bañ te war a taxawe ba jullit ñi dara du leen yàqal duñ dégg lu leen luy dal seen xel bañ dal xel ba mu ëpp duñ dégg lu leen di ragal loo itam ba ragal ga far néewal leen doole sëñ Cheikh. Mm-hmm. jërëjëf sëriñ kii mu ne lan mooy muurum koor ak nan lay toll. muurum koor lu ñuy génne la dañ koy génne itam ci li ëpp ci li nit ñiy dunde nit ki béréb bi mu nekk béréb bi mu nekk. ña ëpp la ñuy dunde ca la koy génne la muy génne nu muy toll saa li ñuy wax saa lay doon saa nattuwaay la woon bu amoon ay jamono waaye biñ ko dëppalee ak nattuwaay yi am léegi muy ay gramme ak yu mel noonu ay wuute am na ci waaye kër asaka yi nekk fii moom lim ci jàpp mooy ñaari kilo ak genn wàll liibar kon mooy daal lu tollook ñaari kilo ak genn wàll libre lay génne ci li ëpp ci li nit ñiy dunde mu génneel ko boppam génneel ko képp koo xam ne itam moo koy dundal moo ko yor loolu mooy muurum koor euh, sëriñ Cheikh mooy lan ak ci luñ koy génne ak nu muy toll kon ci li ëpp ci li nit ñiy dunde ci lañ koy génne boroom xam-xam yi itam bu dee ci ngër ñi ngër ñi ngër mii moom danaan ci ci dund bi rek lañ koy génne bu dee ceeb la ci ceeb bi rek lañuy génne waaye ñu baree bari ci boroom xam-xam yi nag ci yeneen ngér yi te mel na ne itam jublu gi nga xam ne moo amoon ci génne murum koor mel na ne maye na ñu génne ko ñu génne njëg gi njëg gi mooy seet nu mu tollool ci xaalis ñu génne ko jox ko kan koy jox bu ko defee lu mu ci bëgg a def moom mu def ko ci bu ci bëggee jënd dund bi mu jënd ko ci bu ci bëggee jënd leneen tam mu jënd ko ci sëñ Cheikh. Euh, ci wàllu muuru koor ba tey mu ne ndax mënees na koo génne lu jiitu bisu feet gi lu jiitu benn bis wala ñaari bis. waaw sax ñett loolu itam loolu itam mënees na ko mënees na ko rawatina bu fekkee mooy gën a maanaam maye. sottal la taxoon ñu di koy def ndax loolu day lu am solo ci àttey lislaam yi muy àtte yi day am ak jublu gu ca nekk ca ginnaaw ba jublu ga mooy la tax la tax nag lu koy gën a mën a sottal day gën mooy bu fekkee ki ñuy jox ku bàyyi ba xëy door a joxe dana xat ci ki ñu koy jox ba du ci mën a toppatoo li ci bëgg a toppatoo kooku jox ko ko lu jiitu mooy gën mën nañ koy jox lu jiitu benn fan wala ñaari fan wala ñett am na ñu wax sax lu gën a bari loolu waaye lu gën a bari lii itam day juraat ab safaan moom it mën na koo jur ndax mën naa tax mu dugal ko feneen fu bokkut ak fi taxoon ñu koy jox ndax dëgg-dëgg li ko tax a jóg moom mooy bis bi rek bis bi lañ bëgg ci loxoom jotul ginnaawam mu am ci lum dunde ci bis bi am ci lu muy faje aajoom am ci luy tax mu bokk ci feet gi ndax feet la bisu feet la ci mbég mi mbég mi nga xam ne jullit ñëpp ko war a bokk ci bis boobu ki loxoom jotul ginnaaw it dañoo bëgg mu mën cee bokk ñu jox ko kon luy tax mu man cee bokk kon bu fekkee teel nañ ko koo jox mën na koo dugal feneen ba bu agsee lu taxoon ñu koy jox du mën a sotti bu teelee ba ëpp bu yeexee ba ëpp itam mën naa xat ba du ci mën a du ci mën a def lim ci lim ci bëgg a def moo tax kon ñetti fan daal yon na maanaa ñetti fan ñaari fan moom yan nomaana maanaa teelut ba ëpp waaye yeexut ba ëpp itam waaye li fekk ñuy julli ji moom ku ko joxe joxe na ko ci waxtoom li fekk ñuy julli ji julli kori bi ku ko joxe joxe na ko ci waxtoom bu weesoo nag euh, waxtoom weesu na waaye du tey ki mu waroon day doon bor ci moom da koy joxe sëñ Cheikh euh, kii nee na moom benn waaye daf koo ameel bor tëdd ci bañ koo fay mu ne ndax am na sañ-sañ dem ci ay bagage mu jël ci lu tolloog bor bi faye ko ko hmm, déedéet déedéet loolu yoon rekk a ko sañ ki ko ameel bor bu ko munta fay na dem ca yoon bu ko nanguwuta fay mën na koo fay te nanguwu ko day dem ca yoon yoon moom moo sañ loolu yoon moom sañ naa jël alalam jaay ko fay ci borom bor la ci des mu delloo ko ko waaye borom bor bi sañu koo defal boppam ndax boobaa li ñuy wax fajal fajal sa bopp la te fajal sa bopp nag li ñu ciy bañ mooy day indi xëccoo ci nit ñi ak i xeex ak i yu kenn mënut xam moo tax kuñ ameel àq bu ko laajee ci njëkk joxuñ ko ko day dem ca yoon rek yoon moom moo sañ wañ moo moo sañ wañ loxo ki amee àq ji nangoo ko ci moom jox ko boroom sëñ Cheikh waaye moom bu mu ko defal boppam. Hmm. kii mu ne su fekkee ne jigéen dafa laaj boroom këram alal boroom kër bi ne ko yoruma nee na far yàlla dogal mu gis alal joo xam ne ci moom la wadde ndax jigéen ñi sëñ na koo jël te du ko ci laaj ndigal. loolu itam jar naa tey moom it ndax dara wadde ci moom rek taxul mu moom ko. nit dana yor dana yor alali jàmbur mën nañ koo dénk dara mu wadd fekk luñ ko dénk la mën naa nekk lu moomut daal eh, bu ko wóoree nag moo ko moom te lim ko doon laaj farata la farata ju jëm ci ju jëm ci jëmmam moom mbaa mu jëm ci njaboot gi mbaa mu jëm ci kër gi farata la xam na ni itam borom kër bi mën na ko waaye da koo defut sart yooyu yëpp bu dajee moom jigéen ji mën naa defi pexe ba jot ci xaalis ci xaalisu borom kër gi mën naa def pexe ba jot ca lu tolloog nag aajo jooje nga xam ne farata la ju yëm ci moom wala mu jëm ci njaboot gi wala mu jëm ci kër gi sañ na koo def waaye foofu rek la koy sañ waaye lu dul farata nag borom kër gi sañ na laa dimbale rek may la may loo xam ne nag bu la ko joxoon may lay doon rek bu la mayut nag sañoo jël alalam kenn du force nit ki mu may la waaye nag mën nañoo jël alam ci luy ci luy farata ci moom ci anam googu loolu itam cëslaay li mooy euh, am na soxna su mas a hind hind mi nga xam ne moo nekkoon soxna abu sufiyaan di way juru muawiya ibn abi sufiyaan radiallahu anhum bi ñu duggee ci lislaam mook abu sufiyaan ñoo ci duggandoo ak muawiya seen doom hind nag daa doonoon jigéen daal ju ju dëgër ju doon kilifa dana yonent bi Abu Sufyaan mi daal dafa nay du ma jox li ma aajowoo ma sama njaboot ndax sañ na maa jël ci alalam lu mu yëgut mu ne ko bu demee noonu de mën ngaa jël ci alalam lu mu yëgut waaye nag na yam ca ca la nga xam ne mooy farata muy lum la war a defal tamit farata mbaam war koo defal njaboot gi tamit farata te mën na ko waaye da koo defut sañ ngaa fexe ba jot ca loola dugal ko foofa kon bu dee lu mel nii eh, mu laaj borom këram mu ne ko awma ba nopp mu gis alalam yoo xam ne xam na ne mën na ko caa def mën na caa jël dara def ca lam ci war a def te yem ca rek la cay farata nag waaye bu ko leerul nag xamul mën naa bañ a xam ndax moo ko moom dëgg dëggam déet nag naa wax ak moom ah waaye yow kat maa ngi la laaj lii nga dama yoroo dana ko tontu dana ko tontu bu ko tontoo nag eh, dana ca xame ndax da ko moomut wala moo ko moom waaye da koo bañ jox mm-hmm. eh, lu mel noonu daal sañees na ko waaye nag sañeesut lu dul loolu sëñ Cheikh mm-hmm. eh, kii mu ne ndax koo xam ne day julli jàng faatiha ba mat nee na lam ca teg ginnaaw faatiha ndax mën naa jàng benn aaya rek wala aaya bu matut te fekk maanaa bi mat na lu mel ni mu jàng rek inna allaha yu yugayiru ma bi qawmin xata yugayiru ma bi anfusihim waaw loolu de danañ di wax ne mën naa nekk mën naa nekk nit mën naa jàng faatixa ba noppi lam cay teg ci alquran bañ mat ab laaya bañ ab laaya waaye nag moom na doon wax ju mat na doon wax ju mat lu mel ne lii mu joxe ci misaal fii inna allaha la yugayiru ma bi qawmin xata yugayiru ma bi anfusihim loolu wax ju mat la loolu kon nee nañ mën naa nekk nit mën na caa yam waaye dëgg-dëgg nag li gën daal mooy nag mu mat laaye moo gën mat laaye moo gën waaye nag bu ko matut tam te doon wax ju mat ba tey dana baax sëñ Cheikh kii mu ne ndax dagan na ci jigéen muy julliwaale lañuy ñuy tuddee cheveux naturel ak ndax kawar googu laab na walla déet laam na walla déet moom day aajo ñu xam luñ ko liggéeye lañ ko liggéey bu laabee laab na bu laabut laabut tabu bu laabut itam du ko mën a jullee kon lépp ngi dellu ci laab gi ak ñàkk laab gi laab gi ak ñàkk laab gi mi ngi dellu ci lañ ko liggéeyee bu dee lañ ko liggéeye laabut kon laabut bu dee laab na kon laab na bu dee <coughs> cheveux naturel li baat bi firi <coughs> bu fekkee libaat baat bi firi noonu la cheveux naturel mooy kawaru dëgg-dëgg kawaru dëgg-dëgg bu dee kawaru dëgg mooy kawar goo xam ne ci nit la jóge la kawar gu jóge ci nit la kawar gu jóge ci nit la am na bu fekkee loolu la feneen fu mu mën di jóge it bu fekkee Euh, laab na ba tey moom itam laab na kon jëfandikoo gi meneen mbir la waaye ndax nag laab naag laabul meneen mbir la ndax ku ko julli waaye julli gi baax naam baaxul meneen mbir la julli gi baax naam baaxul moom ci laab gi la dellu ak ñàkk laab gi laab gi ak ñàkk laab gi itam ca lañ ko liggéeyee lay dellu loolu kon mu waaju ci ndax jullee ko ku ko jullee julleem dana wér mooy bu fekkee lañ ko liggéeyee laab la kon ku ko jullee julleem dana wér suñu cheikh kii mu ne koo xam ne dafa bàyyee wax rabbana walaka alhamdu ndax daa war a sujjóot rabbana walaka alhamdu ñàkk koo wax du waral day day day waral sujjóot ankay day waral sujjóot day waral sujjóot rabbana day waral sujjóot kon ku ko bàyyi day sujjóot balaa sëlmal ndax dafa wàññi. mu ne lan mooy àtteeb jigéen joo xam ne dafa gis baax bi weeru koor wi di tàmbali nee na bu mu demee ba set mu wéy rek jàpp ne moom koor gi sañu koo def mu ne ndax kooku su dee fay day fay boole ci kafaara walla day fay rekk day fay rek day fay rek. ndax dafa jàppoon ne sañuta woor loola jàppoon moo ko tee woor kon ñàkk wooram du xëtt war may war may koor gi du xëtt war may weer wi waaye dafa jàppoon ne wërta woor moo ko tey woor kon ñàkk ñàkk waram googee day fay rek waaye du ci du ci defante kafaara kafaara ki koy def mooy koo xam ne moom lim def xëttu war ma la xëttu war ma mooy ku xam ne waruta ñàkk woor ba noppi mu ñàkk wor lool kooku mu xëtt war may war may weer mu xëtt war may koor gi waaye kii dafa jàpp ne moom sañuta woor moo tax woorut boobaa day fay rek sëñ Cheikh koo xam ne li ko yoon sant mooy mu wàññi ak julli nee na bi mu ñëwee na fekk na yilimaan di nekk ci ñaar rakk yu mujj yi lu mel ni tisbaar mu ne ko ndax bu àndeek imaam bi ñaar rakk yu mujj yooyu rek mën naa sëlmal kii kii tukki nga xam ne sañ naa wàññi mu topp ci ilimaan juy matal waaye nag ñaari ràkk yi rek la fekke bu doon ci yeneen ngër yi de ñoom am nañu koy maye waaye bu dee ci ngër ñii nag mayewut loolu mooy kii topp ci ilimaan moom jullik ilimaan lay julli jullik ilimaan lay julli bu ilimaan matalee day matal bu ilimaan matalut nag mën naa mën naa matal moom ilimaan joo xam ne day wàññi moom mën naa matal mën naa wàññ ci topp ci ginnaaw mottali ndax bàyyiwu dara ci ilimaan def li ilimaan def lépp def na ko dolli ca waaye mu munta bàyyi lu ilimaan def ilimaan julli ñeenti rakka moom mu julli ñaar loolu ngir mi ko moom ngir moom ku ku bëggoon ku saña ku sañ a wàññi bu toppee ci ginnaaw kuy matal day matal waaye du mën a wàññeeti sëñ Cheikh bu fekkee daa fekk ñaar ràkke it bu ilimaan sëlmale day indiwaat yeneen ñaar ràkke yi ndax daa war a matal ndax ilimaanam dafa matal sëñ Cheikh kii mu ne maamam joo xam ne day roy ci imaam imaam ji bu fekkee ne day julli di aj ay loxoom mu ne ndax da koy roy ci loola ak moom bu fekkee ne day julli di ngëb ay loxoom imaam bi di yor ay loxoom ndax da koy roy ci loolu ak it ndax bu fekkee ne moom buy julli day tàmbalee ci bismillaahi rahmaani rahiim ndax moom da koy roy ci loolu bu fekkee ne moom am ngërëm waxut loolu waaw yooyu de bokkut ci ñu wax ne dañ caa war a roy ilimaan bokku ci yonente bi fi muy waxee ne ilimaan dañ koo war a roy am na yum tudd waaw yum tudd yi bokku ci day wax ne bu kàbbaree na ngeen kàbbar bu rukkoo na ngeen rukkoo bu siggee na ngeen sig siggi siggi buy jàng nangeen déglu kon yu mel noona lañ ci lañuy àndeek ilimaan waaye yeneen melo yi nag melo yi moom yor ay loxo walla tegale ko yooyu moom sartuñ sartuñ nit di ci roy ilimaanam sartuñ ko man ngaa topp ci ilimaan yoo xam ne dangeen ngeen caa wuute lu ngeen di def da yor ay loxoom ngay tegale say loxo wala muy tegale ay loxoom nga yor nga yor say loxo loolu mën naa nekk sëñ Cheikh bu dee nag ubbee ubbee bismillah ci fatiha loolu moom bu dee ci ngër mi doonut lu ñuy wax ndax ngër mi bu ilimaan di wax ca kaw moom da ngay déglu yow da ngay déglu yow doo jàng faatee bay bay ubbee bismillah ak ñàkk koo ubbee te buy wax ci suuf xamoo xamoo lu mu def bu ilimaan di jàng ci suuf xamoo tàmbali na bisimilah wala tàmbale woo ko ba nga ko cay roy buy wax ca kaw yow doo wax da koy déglu rek kon loolu moom daanaka moom mën na cee bañ a dugg euh, kon daal yooyu euh, sartuñ nit da ca di ca roy yéeli maanaam waaye jam koy rawee mooy ay rukon ay sujjóot bu ko defee mu def ko bu siggee mu siggi buy jàng ca kaw mu déglu ko yu mel noonu sëñ Cheikh mm-hmm. Euh, kii mu ne lan mooy àtteb salaire boo xam ne kiy liggéey dafa am àpp bu ñu ko jox ne ko noppalul xëyut liggéey mu ne ndax salaire boobu muy jot dana dagan wala déet lu mel ni ab jàngalekat boo xam ne dafa nekk ci weer yi ñuy def vacances. waaw xam nga liggéey moom liggéey kiy liggéey lu ak ki koy liggéeyal luñ dëppoo rek. ab sart la sart la bu dox seen diggante boo xam ne dañ cee tënku mooy kiy liggéey lu moo ne ko kaay di ma liggéeyal ma lay fay weer nangam di la ko fay weer yépp nag waaye at mi dañ ci noppalu aw weer waaye kon moom moo nangu di ko fay weer ba muy noppalu kon ab sart la boo xam ne ñoo ca dëppoo lu lu mu sañ jël la dara nekku ci dara nekku ci li baaxut mooy waxtu wi nga war a liggéey nga bañ koo liggéey ba noppi di ko fayu loolu moo baaxul waaye waxtu yi nga xam ne ki ki lay liggéeyloo moo la may nga noppalu ci moom it moo lay fay ci coobareem loolu dara nekku ci dara nekku ci li gën a jege rek mën nañ ko tuddee ak may la lum la may la wala ab neexal bu la jox la waaye daal ci coobareem la ko defee kon dara nekku ci li baaxut mooy waxtu yi nga war a liggéey moom nga bañ caa liggéey ba noppi ñu lay fay loola moom lañuy ñuy fay nit ki ci waxtu mu waroon liggéey te liggéeyu ko lam la mu war a liggéey liggéeyu ko ba noppi di fayu lañ ca war a fay kooka moo def lu baaxut kooka la mu cay lekk moom du nekk lu dagan du nekk lu lew suñ cheikh <coughs> jërëjëf sëriñ bi kii nee na moom dafa gis waa joo xam ne dana ko daal gis na sëriñ bu mat sëriñ mu am cofeel ci moom loolu warmal ko mu ne waaye ba mu demee ba gis soxna sëriñ bi mu gis ne moom day jokk kawaram wala boog day xeesal wala yu mel noonu nee na waa ji tàmbali sikk sàkk ci mbirum sëriñ bi mu ne ku mel noonu loo koy labiré loolu nag jarul sikk sàkk jarul jarul nag muy sikk sàkk ci sëñ bi ndax rek gis na soxnaam di xeesal wala di di yokk kawaram ndax it kër li ko war ci ay soxnaam buñ nekkee muskàllaf digal leen rek laman digal ak laabiire waaye nag digaluñ ko mu wañ seen loxo wala muy xeex ak ñoom ngir ñu def nangam wala ñu bàyyi nangam léegi moom na rafet njortu rek ci ne sëñ bi def na li ko war moom soxna saa defut la ko war moom sequt ak soxna sëñ bi sëñ bi la seqal kon la soxna say def warut a tax mu muy sikki sàkka ci sëñ bi ndax sëñ bi mën naa am def na la ko war ndax la ko war du mu wañ loxoom wala rek ginnaaw defut lii rek da ko war a fase déedéet demut noonu demut noonu laabiire digle tere loolaa ko war bu nanguwut te mën koo wéyaale mën na ko wéyaale bu ko mënta wéyaale nag loolu mbirum boppam la ci la koy ci la door tàggoo ak moom waaye doone bu defut li mu ko digal rek daa war a tàggoo ak moom kon loolu daal warta tax muy sikki sàkk ci sëriñ bi nga xam ne moom doyoon na ko doyoon na ko euh, gis rek soxnaam di def leneen warta tax mu sikki sàkk ci moom suñu cheikh euh, jërëjëf sëriñ bi xam naa foofu la ñuy taxawlu ci wàllu ubbe yi xanaa ñu bàyyi la nga tëj rek bunt bi incha allah waaw xanaa di feddliwaat leen ñaanal ci njëlbeen gi rek yàlla may nanu ban agsi fii ci koor bi dañ koy ñaan rek mu may nu nu àggale ko ndax àggagut lu ne xaj na fi nu àggale ko te mu nangul nu ko itam te jéggal nu lépp loo xam ne def nañ ko ci ay rëcc rëcc te fekk lawaat nu ko it ay yooni yooni yoon ci ak wér akuk tal te liñ fi wax lu ci am njariñ itam mu defal nag jàppandal ba nu mën koo jariñu maa ngi jéggalu ñëpp wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Cheikhouna kon ñu ngi lay sant ci turu daayira muqaddamatul xidma di sant bu baax ci taxawaay bi ak ci xam-xam bi nga xam ne joxe nga fi ak mboolem ñi nga xam ne joxe nañ fi xam-xam yàlla na nangu lépp te barkeel ko njax ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد